koy bu baax di leen dalal ci Sénégal. maa fi maa ngi lay fay bu baax a baax baax. ñu gëjoon la gis nag nam la. waa gëj naa tukkal <laughs> mu toll maa ngi fi waaw nag ñu gis la nga ci euh, mariage u Aida Samb hmm. ñu bëri nag euh, dox tànku mbokk nga hmm. donc lan nga mën a wax tey dafa dama kontaan ndax ku teral sa ndey da ngay am teraanga xam nga tey boo gisee yëf yi sedd dafa am ñaari métit yu daje ci moom ndeyam dafa gaañu tantaam gaañu tantaam nag moo doon suma lépp moom laa doon àndal ay di sunu doom te xale bu baax bu teral ndayam bés bii mérité na ko waaw parce que xale bu baax la bu fonk ndeyam ah, doon xale bu yaru daal xale bu yiw bu baax kenn mës sa gis ñu ne wax na fi ñombe mbaa def na ko fi waaye ñu koy ñaanal bu baax un heureux ménage waaw euh, tey lan nga koy yebee ci biir euh, këram. wax na góorgóorlu rek àdduna moom yaru góorgóorlu rek da defe naa loolu rek mooy àddina am respect fonk ñëpp ndax àdduna amul benn solo nga góorgóorlu bu baax rek na am bu baax voilà. Euh, yéen ay porteurs de voix ngeen tey ñu gis feebar bi ñu bëri ñu ngi naan am na amul ñu naan ñii feebar bee leen yóbbu ñuy dee tey boo doon sensibiliser lan ngay wax ñi nga xam ne ñooy say fans ak ñi waaw xanaa di di di di kii rek gis nga man maa ngi ak sama masque am na kay feebar bi am na kay si <laughs> am na waaye il faut prévenir les choses donc toute maladie est guérissable à condition que da traitement commence très <laughs> waaw waaw maanaam feebar yëpp mën naa wér ci buñ teelee jóg waaw mooy teel a dangay wax waaye te lii nattu sunu borom la. dañuy yàlla rek moo xam waaye ñu prévenir rek yàlla nañu ko yàlla teggil ni mu ci yóbbu yàlla nañu yàlla xare àjjana voilà. lay kontaan naa ci yow xale bu baax nga yàlla yàlla may ba su jàmm sama doom ji ba ma ñëw fekk mbas mi jeex ñu bëri